asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa man la sëriñ Moustapha Mbacké maa ñëwoon tey di leen fas yéene indil benn chronique bi am ci sunu site di info réew mi di jàll itam ci rajo bi ñu koy amal tous les vendredis à partir de vingt deux heures euh, di ci fas yéene waxtaane ak yéen lu jëm ci wàllu diine ak jamono ak politique ak xew-xew yi nga xam ne dafay xew ci réew mi dañ ci wane suñu xalaat. ginnaaw bu ne sant yàlla ki lu ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi sant suñu yaakaar suñu sëriñ si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mbokk julli tey nag ñu am benn waxtaan bu ñu bëggoon a partager ak euh, mbokk jullit yëpp na suñu. confrère bi ñu nekk ci di di mouridisme ñu gis nag ay ay ay ay ay ay yu bari yoo xam ne daal yu ñu war a waxtaanee la waaye nag may ma leen di xamal ne jëmm ji wax ak yéen lépp lu ma fi wax rek man la engagé man man maa ngi tudd Moustapha Mbacké dëkk Touba màgge fa jànge fa samay waajur nekk fa ma bokk ci famille Mbacké famille Serigne Fallou ma leen di ñaan itam lépp loo xam ne wax naa ko fi rek ngeen dégg ko ak xel te bañ ko déggee ak xol jamono ji nekk jamono joo xam ne daal li ñu gis nañ fi yu bari yoo xam ne daal ay yàqu-yàqu la yàqu-yàqu yi nag bari na lool ba tax na ñu ko jug sax di wax xaj na nit ñu bari dañ ne dafa bari wax wala dafa dafa dafa dafa su dee gone ñu ne gone gi dafa war a nopp wala dafa war a jàngi wala dafa war a dafa war a leneen. alors que du loolu dëgg moom Sëriñ Tuubaa nee na su ñëpp àndoon ne dëgg gi aw fenn la du mu nekk dëgg noonu la waxee itam ne su ñëpp àndoon ne fenn wi dëgg la du tee rek mu nekku fenn kon dëgg gone war na ko mën a wax mag itam war na ko mën a wax. may fas yéene waxtaan ak yéen waxtaan woo xam ne itam li ñuy wax sujet tabou li tubaab daan sujet tabou ay ay mbir yoo xam ne kenn du ko laal waaw te te mu nekk lu concerné loo xam ne nit ñëpp dañ ko war a di jàngat di ko waxtaane première bi li may jiital ci waxtaan wi dama koy def ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi maa ngi koy jëmmale ki sama mbokki sëriñ fi beneen bi maa ngi koy jëmee ci mbokki taalibe yëpp bi may commencé nak jamono ji dañu gis lu nekk te touba tuba wul am fo sëriñ tuba wote leneen lu dul yoon wo xam dafa jëm ci yalla lolou lañ lolou lañ jang ci téré bi am ay dérapage yo xitam dañ koy gis ci yoonu murit manam ci talibi ak ci serigne manam dérapage yi may ñëkke ci serigne ci moy légui mabbu na ñom ñëpp dugg ci politique bi ñoom ñëpp màbb nañ di nekk ci yeneen yoo xam ne naka su dul noonu la waaye loolu lépp su amee itam kenn ku nekk lépp looy def war nga mën a jël say engagement yi bopp say position yi bopp nga def ndax li may faral di wax rek ak sëriñ bu ñu fàtte ne ak sëriñ du ak fal ak sëriñ sëriñ danga koy doon ndax suñ boroom moo wax ne mag ñu baax ñi nga xam ne daf leen a jox ay daraja mooy ay wàlliyu suñ fi jógee day seeni set suñ jaaree ci yoon wañ jaaroon rek day yomb mu am am la amoon seen maam amoon naka noonu ñu koy misaal ci ne aw jiwu bu baax soo ko jiwoon ci tool bu bon it doo méngale dara waaw loolu lu ma ci jublu mooy que ne sëriñ si nañ bàyyi nañ bàyyi buur buurlu gi ñuy buur buurlu ndax fi ab royaume amu fi manam fi kenn fi bur ab serigne du bur ab taalibe du esclave manam lolou nañ ko bayyi nañ xamal nit ñi serigne tuba xamal leen xasida yi tuba yi xamal leen serigne tuba bind manam directement te bayyi folklore bi ak di réere nit ñi di réere nit ñi parce que yu bari tam ñak waxtane la ndax serigne tuba yu bari bayiwuko fi sëriñ tubaa léegi sax maa ngi dégg jamono yee am benn benn sëriñ benn mbàkkam sama mbokk sëriñ di wax ñu woon na fee coow sax ne sëriñ tubaa moo bind yàlla te loolu mbokk lu dangereux la loo xam ne lu dangereux lu dangereux loo xam ne dañ koy bàyyi rek mu jàll noonu ak yeneen ak yeneen yoo xam dafa am ci biir yoonu murit te kenn du ko laal te yooyu nekk lu ñu war a waxtaane waaw sëriñ Tuubaa waxul ne yàlla la man sëriñ tubaa amul fenn fu mu bind ne yàlla la. amul fenn fu mu bind ni moom yonent bi la abdullahi wa xadim rasulillahi la wax mu wëlbati ko mu tekki ne dafa ñëw rek ngir beesal lislaam maam yoonu Seydina Muhammad la ñëw pour beesal ko te loolu ci la nekk joxe ci dundam gépp ba yàlla fayee ko lim ko fay ñuy dox ñi ko fi toog nekkal nekkal ko fi waaye ba ci jamono yu nekk di ñu wax nekk ci jamono yu technologie ak mondialisation ak meja di yàq lu bari ndax léegi maanaam lu benn mbàkke mbàkke def rek ñu ne mbàkke mbàkke yi def nañ def nañ nangam mu bëgg leen bàyyi xel leneen tamit am na loo xam ne dañ ko war di xoolaat bu baax a baax bu ñu itam mbàkke mbàkke bu ndaw rek du wax amul kàddu maanaam du wax ndax ñun ñu ñu jàpp ay mbàkke mbàkke yu ndaw tamit donte ay gone lañ waaye nag ay responsable lañ dañoo am ay soxna am ay doom kon nag mën nañu jàpp tànk ci saayir waaye dëgg moom du tee danañ ko wax ñëpp nag man nag fi may joxoñ dëgg gi bu njëkk mooy Serigne Touba bàyyiwu fi ak ngóor gu ñuy dond waaw maanaam mën nañ ko bañ a gisee noonu comme ni ma ko waxee waaye yoonu mu amul ab royaume maanaam xilaafa gi fi nekk du royaume du ab royaume sëriñ si itam duñ ay buur duñ ay roi duñ ay roi duñ ay roi xam loolu bu baax a baax du du rek dangaa nekkub sëriñ dangay sol yére rek maanaam euh, kenn ku nekk. ña yàlla booleel la ko à travers ci Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul maanaam ñu la siyaar di si ay taalib suñ ñëwee nàmpatal leen ci diine ak yoonu Sëriñ tubaa waaye rek nga ñëw rek dagaleeb xaalis rek après jeex na taalibe bi amul leen loo xam daal mi ngi koy jàng ci yow rawatina am na ci ñoo xam ne sax du ñu ci lool waaye dañu yem ci di leen jay ak di leen wax loo xam wax loo xam ne sëriñ bi wax ko di leen dig na ak déem sëriñ bi sax doonte àjjana moom moo gën a tur ci lim man waaye di leen di di wax wax yoo xam ne wax yi teguñu ko fenn fu dëgg teguñu ko fenn du waxi dëgg te loolu am na ci mbokk am na ci yoonu murit bi am na fi waaw. beneen bi mooy ñu ngi seetaan lu bari ci yoonu murit loo xam ne wax dëgg yàlla lu ñu war a lu fi war a dindi la ba ci waxtaankat yi nga xam ne yu bari ñuy tuddee ci ay waxtaankat yu mag yoonu murit bi seeni waxtaan soo ko xooloon ca biir wax dëgg yàlla loolu maam day dekk loo xam ne lu rësul la. ndax dañuy wax rek ngir seen poos wax ji yooxu ak di wax ci Serigne tubaa loo xam ne nekkut ndax Serigne Touba maanaam moom moom li mu jàppe boppam mooy ab jaamu yàlla bu jaamu yàlla bu yàlla fay ko mu wëlbatiku di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam fay ko kon nag kooku lépp loo ko tuumaal ëllëg yomal xiyam dañ ko layoog moom jamono ji nag war nañoo xoolaat bu baax a baax la fi nekk Touba nañ bàyyi politique bi ak ñi ma ko war a wax sama kilifa yi fi nekk Touba am nañ ñoo xam ne politiciens yi suñ ñëwee dugg ci kër sëriñ si ñu leen fi yaatal te taalibe yi nga xam ne taalibe sëriñ Touba di duus si xaside yi di yeewu fajar di matale juróom julli gërëm sëriñ Touba di ko jox addiya ñooñu kenn kenn du leen considéré suñ ñëw ci kër sëriñ ab politicien moo jóge fee ci àll ba wala milliardaire ñëw sëñ bi tong tongal ko yaatal ko dalal ko loolu naafeq la loolu naafeq la loolu nafiq la te seigne bi seigne bi seigne bi seigne bi wul loolu beugul loolu seigne touba musta beug ngour bañ nako bi fi bi fi waajuram tedd wi joge mamadou dañ ko wax mu wuy lab jor lam ci tek ñepp xam nañ ko musu ko wuy ji te seigne touba neena ad dawlatul batil saaha wa dawlatul haqq ila saaha seigne touba neena nguru aduna mom bu la dem maanaam du jeex mukk ci àddina kon nag loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax mbir mi am na am na ñoo xam ne fi ñu ko teg du foofu am njumte am na ci maanaam du buur nekk rek dangay nekk buur euh, di maanaam maanaam dangaa dund ak nguur déedéet dundoo ñu nguur moom li ñu war a dond mooy diina yu sell ku la gis gis ci yow Sëriñ Tuubaa maanaam ñuy nàmputal taalibe yi ci ci xaside yi ak ci jaamu yàlla loolu moo fi nekk waaw nañ bàyyi naafiq gi naafiq baaxul te itam lu ci bari ay si tabu la si tabu yoo xam ne kenn du ci wax kenn du ci wax waaw wax gi nag waaw maam dëgg moom fu mu nekk dañ ko war a wax fu mu nekk dañ ko war a wax am na suñu bari ñoo xam ne ñu ngi si ñu ngi war sëñ bi ci xilaafa gi maanaam di def naka su dul noonu ak di kookooral ay nit ak di ci business ak di ci wut xaalis loolu loolu loolu loolu loolu loolu baaxul nañ ko bàyyi te sëñ bi yëgu ci dara waaw sëñ bu jëkk dara fi mu ne xale boo fi wax sax dëgg wala nga jéem a am say position wala nga am say say say say say xalaat ci réew mi maanaam kenn lay jóge fële dem ki sëñ bi ne ko diw nangam ak nangam te alors que loolu demewul noonu nañ bàyyi naafiq yi ak di bëgg bëgg nguur ak bëgg fal te loolu sëñ bi indiwu ko ci yoon wi yoon wi yoonu tasawuf la yoonu jaamu yàlla la donte sax yëmul suñu yoon dong ndax itam yoon yu bari léegi ñu ngi jàppee suñu bopp ay sëriñ sëriñ sëriñ dangaa war a dangaa war a dangaa war a nekk yor jikkoy sëriñ jikkoy sëriñ mooy soo amee taalibe na nga yemale taalibe yëpp taalibe yëpp da nga leen waaye am Seex Amadu jóge fi la rek nga yéen ko teeru ba ba ba ngoon jot waaw di di naan fu mu toll fu mu toll su ñëwee nga korkolal ko dalal ko ca sa saal ba nga gën a fonk fa nga xam ne taalibe doo fa fekk wala sax nga yóbbu sa néeg sa néeg biir sa néegu biir nga yóbbu ko fa te taalibe yi nga xam ne dañoo fonk Sëriñ Tuubaa di durus xasida su ñu woon ki sa saal boobu képp képp saal boobu duñ fa accès doo may doo am doo leen may accès ñëw ñëw fa loolu nañ nañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax sama mbokk sëriñ yi nga xam ne dañuy def politique nañ jël seen engagement yi bopp dem defi politique am nañ ci droit ay citoyen lañ waaye nag nañ ci génn sëñ bi képp ku def politique nga la engagé yow bul benn jël benn taalibe wala ngay jël benn kii di ci di ci dugal sëñ bi. demal nga engage gil sa engagement yi bopp nga def sa politique nang ko nang ko nang ko nang ko bëgg a leneen lima euh, ci tek ci walu talibé yi gis nga aduna deug dafa bax deug dafa bax mourid yu bari mourid yu bari xeer dana leen japp bañ wax lo xam wul waruñu ko wax té lolu lu lu garaaw la loo xam ñu koy bayyi ci yoonu mourid bi muy law di dem di gëna yokku ndax li ma la net ki ci ci ci ci ci ci seen mara bobu si màkke màkke bobu waxon lolu xagn na da fees ndax liñ wax média mo tass lepp léegi ba lepp lu nit wax rek tay sama wax di euh ma waxee tay bala suba man nañ ko tass ci addu mbé waaye yag na fi ma ngi diglu ci ben radio ab ben taalibi su yamal xiyaamatee su yalla nekké ni yonante bi ni da fay rombu yalla rombu fa bi dem ci dem ci Serigne Touba loolu Serigne Touba bëgg ko mom jàpp ne ne loolu ndam la ci mom ak talib la loolu talib loolu ak reer la nañ bayyi loolu Serigne Touba yalla wote wul yonent bi dafa nek Abdullahi wa Rasulullah. Nek jamu bi yalla ndax martaba boobu mo gëna kawé ci martaba yi kon nak yow mi nga xam da nga japp Serigne Touba yalla wala nga ko tek fo xam ne wax yalla place bi yalla la loolu reer mënu ko wessu nañ bayyi Serigne Touba jaamu yalla santane ak nek ci lañu wara nek te bàyyi naafeq gi lépp loo xam ne nag lépp loo xam ne sëñ sëñ sëñ bi ko nañ ko teg ci suuf waaw lu ci bari ci sëriñ si ci biir sëriñ si am na ñoo xam ne ñu ngi def loo xam ne sëñ Tuubaa bàyyi ko fi bàyyi ko fi santaane ko nekku ca nit ña ngi teg seen bët di ko bàyyi muy ay siis tabu ay siis yoo xam ne kenn lu ci wax kenn du wax soo waxoon fi tey jii da ngaa ñàkku taalibe da ngaa murtad li alors ko dëgg la dëgg fu mu nekk fu mu fu mu fu mu nekk dañ ko war a wax waaw. ab serigne da nga wara nek ci nga wara nek jaamu yalla ku ñew nga sant ko jaamu yalla ku ñew nga tax toxantal ko ci la nga jang ak serigne touba jang xasida jaamu yalla la nga man ci ay naa nga def ko la nga man ci sarax nga def lepp lu bax nga digal ko ko waye legui li gis moy eh, legui lepp lepp lepp lepp dafa am dérapage lepp dafa am dérapage nañ ko wax nañ ko wax dafa ñu wara wax deug parce que touba santane wul ab serigne di am juroomi jabar ba jàpp juróom benn jabar jëpp fukki jabar ak juróom loolu loolu du yoon sëriñ bu ko def ko loolu man ku ko def man jàppi wóolu sëriñ man ak ko mën def nag ak foo mën a nekk man maa ngi fii man Moustapha Mbacke maa ko wax jàppi wu ma la ku bokk suñ tubaa ndax suñ tubaa bañu bëgg ko ndax suñ tubaa sharia ju mat sëkk la indi ak xaqiqa jaamu yàlla ju mat seet wécc waaye ab sëriñ bu dem bay toog di am fukki jabar ak juróom ñaar loolu topp sa bakkan la jàpp sa bopp buur te doo buur doo buur doo buur fii kenn du fi ak buur nekku fi fii ku ak buur nekk fi Sëriñ Tuubaa wutewul ak buur Sëriñ Tuubaa wutewul ak buur Sëriñ li mu wootee mooy mooy mooy mooy mooy muridullah mooy mooy mooy muridullah mooy rek namm yàlla mu jëm ci yàlla waaw mu jëm ci yàlla loolu la woote waaye nag nañu bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi caaxaan yi caaxaan baaxul li ci topp li ci topp mooy nañu bàyyi nañu bàyyi loo xam ne dañ koy forcer dañ koy forcer murid yi sëñ Tuubaa nekku laaj yi dafa bari fii rek soo duggee ci Europe gi Amérique ak feneen foo xam ne murid ña nga fa yaa ngi gis ay carte barkeelu fu ne ñu jóge fa di laaj nañuy xaalis boo xam ne kenn xamul fi ñu koy dugal loolu dañ ko baax loolu loolu baaxul sëñ Tuubaa santaanewul loolu laaj su dee am man fi ma koy nangoo laaj bi fi ma koy nangoo mooy Serigne Sidi Muxtaar xalifata général murid kullu murid kooku su laajee ñëpp ne ah war naa laaj ndax moom la moo fi ne Sëñ Tuubaa moom la ñëpp xool Sëñ Tuubaa waaye léegi fu ne yaa ngi fa gis carte sas yi fu ne yaa te loolu wax dëgg yàlla am murit murit murit murit da nga di encouragé ak muritam waaye doo ko découragé doo ko découragé léegi encouragé gi nag mooy nañ leen di gën a nàmpatal ci Sëñ Tuubaa yi ñi nga xam dañuy wax ci Sëñ mais waxal dëgg gi waxal dëgg gi waxal li Sëñ Tuubaa wax ak li yàlla wax te yam ca. ku koy dégg dégg ko ku déggul dégg ko waaye su duggee ci bâche rek faaw nga yuuxu faaw saleeru ca kaw pour nit mën a yëngal seen poos yi loolu naa la naa feq la loolu nañ ko bàyyi xel kon murit yi murit yi Sëriñ Tuubaa lim lim lim woote mooy muritul laax ñëpp àndam ci yàlla waaye nañ bàyyi naa feq naa feq baaxul waaw naa feq baaxul te te te te te am na loo xam ne waaye dëgg doo tëgg yàlla manam manam ak deug la go xamni nit ñi ngi tek seen tank teg seen tank waaw manam sama classe gi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamni tamit xey mag nañ ci japp ne mbir mi ab royaume la fekk du royaume ñun du nuy bur waaw du nuy buur manam ak sëriñ ak sëriñ da wara feñ ci yow waaw su feeñoo ci yow nga engagé wu sa bop jël sa responsabilité bop mais bul takal sëriñ touba ndax sëriñ touba kat manam ki murid bu nek war nga mëna war nga mëna war nga mëna a muccal sa bop rafetal sab der ci ci kanamu ni ñëpp ba sëriñ tubaa ku ku xool ci yow du yëpp sëriñ tubaa waaye di taxawalu loolu nax def waaw léegi suñu ne mbàkke mbàkke ba wala su dee taalibu sëriñ tubaa bi waaw loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu sëriñ tubaa wutewu ko sëriñ tubaa bàyyiwu fi loolu bàyyiwu fi loolu bàyyiwu fi loolu sëriñ tubaa li mu bàyyi mooy lu set lu sell jaamu yàlla dem ci dem ci yàlla loolu la fi bàyyi bi fi joge itam doom mi fi bàyyi loolu lañ leen xamee ku ne xam ne ne la ko dala ci sëriñ Mour Moustapha ba ci sëriñ Fallou ba ci sëriñ Saliou ba ci sëriñ Mourtala ñoom ñëpp loolu lañ nekkoon te damay faral di wax ne doomi sëriñ Touba kenn ëpp leen talibe talibe rek kenn ëpp leen ko waaw léegi nag dérapage yi xew yëpp ci jamono yi la xew waaw ci jamono yi la xew jamono yi la xew kon nag dañu bàyyi naafeex gi waaw dama bëgg xam ne Touba. li fa am xilaafa gi ci boppam du ab royaume dafay nekk ki fi teg xalifa dafay nekk toogal fi sëriñ Touba murid yi adde yi ñu am jox ko waaye nekkul ab royaume boo xam ne su suñ nekkat sëriñ diw moo nekk xalifa général kat ñu ko war nekk di business aka di di di def yëf yi naafeex ak di propagande politiciens ak milliardaires yi loolu loolu loolu loolu hypocritique la naafeeq la ak ku ko mën a def nag waaw. waaw képp koo xam ne daal yow li ngay am maanaam li nga nekk Sëriñ Tuubaa war ngaa mën a jomb jomb di di di di def yoo xam ne daal nit ñi dañ la cay xeeb te daal du nekkul loo xam ne daal lu lu la lu yenu maanaa nekkul lu yenu waaw li ki topp mooy. nañu nañu nañu nañu dellu nañu dellu ca njàngalam sëriñ tubaab te fonk taalibe yi te taalibe yi fonk seen seen seen sëriñ si te jaar ci yoonu wa nga xam ne moom la sëñ Tuubaa bëggoon kon mbokk yi lii mooy waxtaan wi nga xam ne moom lañ bëggoon a séddoo ak yéen dinañ ci ñëwaat ci yeneen jamono pour gën a yaatal mbir mi ak nu mu nu mu gën a mën a gën a mën a demee.